ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak paatu benn ci doomu Gambie euh, ci xibaar ab doomu Sénégal la ñu njortal jëf ju ni mel waral it euh, ñoom Gambie ña fare ca dëkk bi di Sagnang mer bu futt dem ca commissariat ba nu garda wi doomu Sénégal ba euh, taal fa lakk fa ki di jëwriñ ji nu dénk Sénégalais yi fare bitim réew Moïse Sarr di woote jàmm ak dal ginnaaw bi nga xamante ne rëccu na tiisoo loole di xew-xew wàllu xibaar bokk ci ñàkk gi ngir jàngoroy coronavirus ak werante gi ci ñeel ñàkk bi di AstraZeneca euh, ñenn ñi gis ne dafa am ay njeexite yu garaaw ci yaramab doomu aadama ci ñenn ñi fare ca tugal OMS mbootaay gi yore wér gu yaram ci àddina ne déet mu ngi dalal xel ya rawatina kër gi nga xamante ni moo ko defar euh, di euh, waa këru anglo-suédoise gi di firm Euh, moo defar AstraZeneca bi euh, di dalal xel ya kon ni nu ko waxee fii ci Sénégal CNES mooy confédération employeur yi ci réew mi euh, ay njaatigi këru liggéeyukaay mbootaay ga ci boppam nag mu amab réeroo seen biir ginnaaw bi nu falee kii di Adama Lam ca bopp ba ñii di syndicat BTP yi ñoom ne àndunu ca daa am rëq-rëq ci wàllu palin wi Babacar Ndiaye président intérim ba ne dina daal di yóbbu mbiri ci yoon jamono yu Adama Lam ci boppam mi nu fal moom ne fa mu daal di wékku rek ba fii mooy dogalu conseil administration ba ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu dal di tambalé li nga xamanteni Moy mooy gu dugg digënté ñenn ci doomu Sénégal ñenn ci doomu gambi ci dëkk bi di Sagnang ba bakkan rot fa euh, ki ñu jortal def jéey gi nak euh, di doomu Sénégal ma nga ci garda bi ci commissariat gox ba wul ñenn ci wa gambi ak mer dem fa tal ak ak yenen waye ministre bi yoré sénégal yi faré bitim réew Moïse sax bu sañon mu neex ñu and ci ak dal ci mbiri ginaaw bi mu ko rëccoo loolu nak monsieur le ministre Moïse sax ak Makumba Bey ma yëkëti sama njaal ak njaalu ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur naa wax sax njaalu jiitu réew mi son excellence monsieur le président Macky Sall jébal ko njabootu gambien boobu boo xam ne moom la ñu faat ak waa dëkk ba yëpp yaakaar naa ne situation bu métti la tiis la boo xam ñun ñëpp ñoo ko ñaawlu parce que nag diggante Sénégal ak Gambie jàmm ak salaam rek moo ci xej gambien yi ak sénégal yi ñëpp xam nañ ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc lu mel nii bu amee mu nekk lu tiis lu métti donc ñoo leen a baax ah, Gambie ak autorité compétente Gambie ñoo pour un retour rapide à la paix au calme et à la sérénité Santé yàlla parce que aux dernières nouvelles dégg nous ne vraiment situation baa revenir à la normale Nous ñun ñëpp dañu war a pour ñu gën ko consolider appel boobu rek lancé au Sénégal yi

woote na apaisement ci biir Sénégal ñu ngi ko ciy félicité bu baax wane na réew mi buñ jaaxlee buñ xamatul fu ñu jëm kàddam moo mën a sauver Sénégal message président de la République nee na dégg na la jeunesse lool mooy ñun responsable politique yi ñu ñam ay nombal tànk ñoo war a taxaw dem ci jeunesse bi wax ak xale yi wax ak jigéen yi loolu mooy yoon Nous ne pouvons pas être ci Wuro Sogi non la bëgg chaque responsable politique bi nga xamante ne yow président Macky Sall nga àndal nga dellu sa gox ànd ak sa jeunesse wax ak sa population wax ak nit ñi loolu moo am solo. ñu nangu ñu ñuy gëmloo boo juddoo Sénégal jaroo fi jàngee fi munoo fi tekki c'est faux c'est faux arrêtez ce discours pour décourager jeunesse sénégalaise on n'a pas le droit de tromper les jeunes on n'a pas le droit de manipuler nos jeunes amuñu droit pour man RFM mooy ñu waxtaanee wàllu wér yaram ak euh, vaccin bi nga xamante ni mooy AstraZeneca beeg euh, coow wala boog ñenn ci njort. Euh, gu ca laxasu ci àddina jamono yi ci njeexite yu bon mu mun a am ci wàllu yaram laboratoire bi euh, ci Grande-Bretagne defar ko ñoom di dalal xel yi nee nañ daal laata ñuy génne ñàkk bi jaar lañ ko fépp fi war ci it am nañu ay firnde ci wàllu euh, xarala ak kër docteur di wàllu kon ay preuve scientifique ne ñàkk bu baax la du Sabax baax entreprise bi mi ngi bàyyi geut bu baax li nga xamne ne moy mooy kaaraange yi laboratoire britannique bi nga xamne ne moy defar AstraZeneca di dalal xelu askan web ci li nga xamne ne moy vaccin bi di xex jangoro bi di coronavirus nam sax lu ëpp fukki réew ant bu ci melne France Allemagne ak Italie gum nañ li nga xamne ne moy yoyu le la ñaq gannaaw bañu signalé ay effets secondaires waaye groupe pharmaceutique anglo-suédois bi di xamle rek amul ben preuve bo xamne ne moy mooy lu ni mel di ci amul leneen lu ñu York ci li nga xamne ne mooy yooyu la ñàkk te nga xam ne ne lu ëpp juróom benn fukki junni yoo xam ne ne jot nañ leen cee pingu ci li nga xam ne ne moo soxal sécurité bi AstraZeneca di xamal askan wi ne amul benn jafe-jafe bu ñu nemmeeku ci loo vaccin yi nga xam ne jot nañ ko yóbbu ci Europe ak ci àdduna bi teg ci ne ay test supplémentaires yoo xam ne ne ay autorités sanitaire yu nekk ci Europe ñoo ko def te yooyu les tests wanewul benn yoon ay njàqare bu ñu sukkandikoo ci seen communiqué bi nga xam ne ne génn nañ ko laboratoire britannique bi di fàttali rek ne jamono ji ñu toll faw ñëpp ñàqu ngir rek ñu mën a mucc ci jàngoro bi AstraZeneca di ci teg ne ab rapport mensuel ci li nga xam ne ne moo soxal kaaraange yooyu la vaccin dinañ ko siiwal ci ay bés yi di ñëw ci site bu agence européenne des médicament ngir ñu sàmmook mesure exceptionnelle yi nga xam ne ne teg nañ ko ci lépp li nga xam ne ne moo soxal boobi le vaccin ngir xeex jàngoro bi di coronavirus. dañuy des ak jàngoro ji Amadou Sabax di coronavirus ak tolluwaay la ci diwaanu Fatick lu jëm ci wàllu wér gi macha allah téeméeri malade yoo fa jël juróom-ñaar fukki ak juróom-benn kër docteur jox na leen tan ñu dellu seen kër wér. muy kon ci juróom ñatt téeméer ak ñeent fukki malaatu diwaan ga ñetti téeméer ya Euh, wér nañu it euh, ci lu yàggatul dinañu gën a defi jéggo ci walu paj docteur ndax centre de traitement ba fa ci fatigue amna na service réanimation leeral li soxna Aminata Goudiaby bi feebaru coronavirus duggee ci réew mi daw ba légui ni ci région bu Fatick lu ëpp juroom ñaari téméri nit jot na leen dal waaye nak né ñu ñi ci wër bari na loolu buñ sukkandikoo ci médecin chef bi na sax amna ci itam ño xamni jot nañoo génn àdduna te seen lim di tollook juroom benn fukk ak ben docteur abib Ndiaye biñ ko xayma am ton nañ ci 740 euh, cas yu ñu am tambalé ba légui té gis nañ ci ñak nañ ci juroom ben fuk ak ben ci walu wowu aussi gis nañ ni amna fuk ak ñaar yu ñu transféré won évacué won amna aussi lu toll ñet téeméer ak ñeent fuk ak juróom yi nga xam wër nañ ñi nga xam nak ñom ñoom ñoo ngànk wàllu wér-gu-yaram gi ci région bi di wax né fi léeg weeru avril yaakar nañ ni dañu maîtriser feebar bi bu baax a baax ndaxte fii mu ne ci centre de traitement des épidémies bi nekkee ci hôpital régional bu Fatick amna ab plateau de réanimation ta amu fo won di ci remercier ministère santé ndax fexé nañ ba service réanimation légui am nañ ko Fatick tuñ ñuy évacuer suñu ay malade am nañ si bu baax am équipement yu doy am nañ juróomi lal complet te loolu dañ ci sant yàlla. nee ñu nag campagne de vaccination bi fi mu ne ñu ngi koy doxal bu baax a baax ci biir région bi ñaari loowu vaccin sax jot nañu ko. ci ñàkk bi nag ci district yëpp ñàkk yi ñëw nañ médecins yi jël nañ ko ak ICP ñu ngi koy teg en place fii ci région Fatick ñàkk lu toll 15000 doomu aadama gën ci bësal nag ñi am juróom-benn fukk at topp. andak ay ay ay ay médecin chef région bu Fatick nak mom mi ngi don àddu gannaaw ba ñuy performance yi nga xamni mom lañuy def ci walu wér-gu-yaram ci biir région bi mom nak moy xamle ne ci walu santé de la reproduction Amna ay djego yu mak yuñ ci def ak itam li nga xamni mom modi xex paludisme Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ba ci xibaaru suba sek RFM ñu waxtane leneen di kuréel ak njaatige këru liggéeykaay kay di CNES euh, ñoom waa akpal euh, am na le ak seen biir ak pal jëm ci ki di euh, njit la Adama Lam syndicat national BTP ne en ci ndax gis ay ci walu na ci ñu am ay violation ci walu win wi euh, li nga xamanteni moy am ndaje euh, bu kurel gi euh, kiko def vice président bi président en exercice ba waron ko def ak lu jëm ci walu at yak yenen ngir pal gi dañu déglu pa à gannaaw ay fan ñu tabbe njiit lu bees ci CNES di confédération nationale des employeurs du Sénégal jamono ji nak yengu yengu yi door Babacar Ndiaye mom mi nga xamne mom mo nek premier vice président nekkoon itam ki ñu dénkoon lengé yi gannaaw ba Babacar Kama génnee aduna mom nak muy ñaawlu falin gi nga xamne mom lañu fal Adama Lam muy xamle ne bari na ci ay mbir yo xamantene jaarul yoon. ci élection déjà convocation yi niñ ko défé c'est des convocations irrégulières moi je suis le président en exercice et c'est le troisième vice président qui a convoqué premier point deuxième point moy on a eu des procurations dans ces votes-là, procurations c'est pas légalisé. Or une procuration dans un vote comme ça, ça doit être légalisé. Troisième point Moi, le vote électronique n'est pas prévu par nos statuts.

xanaa il faut nga nekk taalibeem jaar ci daara ji mais yow mosoo daar ci jaar ci daara ji xamoo fu daara ji nekk sax nga yeewu suba ay nit yi nga xam ne nit yu doy waar lañu yëkkati la teg bëgg la teg suñu kaw kenn ko nangu. jamono ji ñu mer ba futu syndicat national bu BTP jamono ji li ñu bëgg mooy ñu daal di nenal élection yi nga xam ne moom la ñu amal waaye itam lépp rek ngir fexe respecter lépp luy yoon ak règlement ci seen kuréel gii di confédération nationale des employeurs du Sénégal jërëjëf Pape Balla RFM jokkoo ak président bu bees bu CNES euh, di Adama Lam waaye moom euh, taamuwul àddu ci yëf ya lu may mu ne wéer euh, li nga xamante ni mooy tolluwaayu CNES ci dogal bi tukkee ci conseil d'administration bu kuréel gi kon ci la wékku meerab kaolax daal di tontu transporteur yi jàpp ne lii di seen garage ba fa ca googeeg diwaan dañu ko daal di dog-dogee cantine ci lu nu yëgul dara amu ca mu ne yëg nañu ko boobee projet ñu teewlu soxna Mariama Sarr bés bu ouvrage bi paré ñu tabax ko ba paré l'ouvrage revient à la commune et reste une propriété de la commune de Kaolack souf bi soufam la marché foko tabax rek mairie nga ko tabaxal ndax moy jël recette yi donc lu leer la projet commune la partenariat lañ ko défé euh, dans le cadre de la RSE. mais madame le maire dañu ne cantine yi dafa ëpp bañu ñu cantine yi mais dafa ëpp ay 200 cantines amuñu aire de repos 208 amuñu aire de repos amuñu espace finance comme suñ ko waxee dina ma jaaxal parce que recevoir na le représentant ak CD euh, ñu ne dañuy soxla woon ay aide de repos yoo xam ne finance la loolu yëpp entrepreneur bi jël na ko en charge mieux dina leen ko aménager ba nga xam ne dinañ fa mën a nekk pour bu ñu amee seen repos ñu def ko fa bu ñu amee lu ñuy liggéey ñu def ko fa li ñuy ragal rek mooy espace vide boo nga xam ne dana mën a bokk dara ñu bàyyi ko fa ñu indiwaat anarchie mu indiwaat insécurité loolu rek lañ ciy bañ mais espace finance yooyu prévoir nañ ko. kenn lañ fay déménager incha allah. mu nekkoon euh, maire ab Kaolack euh, soxna Mariama sar ci micro Ibrahima Diamé euh, doon addu ci jamono yoo xamante ni dañ fa doon amalam ndaje ñoom coalition Benno Bokk Yaakaar doon féddali seen jàppale président maky Sall jaare ci it wàcce kamil alxuraanul karim ay ñaan naka noonu jaglel ko way dawlu waaye ñi amee gaañu ci fitna yi woon fan yi ci Sénégal RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñett. RFM sport. Espoir geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la Jassane. bismillah nu doré ak ñentel bi journée Ligue des champions Afrique ci Alger tey ji wa Tëngéej nga fa war a laale boori Dissnéfère seen digganteeg waa Mouloudia bu équipe bu Alger googa ñom sax Algérie ñoo kon dikon ci Cees ji daan wa Tëngéej ci ben bal ci dara wante entraîneur bu Tëngéej FC Youssou daboni amna lu ñu jàngat ci li ñu njëkkoon a jongante ak algériens yi té gëm na bu ñu jooyanti ko ndam dina dik ci boori Sénégal moom Youssouf Dabo dembu jàkkaarloo na taskatu xabaar yi pour faire Alger. Bah, c'est vrai que c'est un match euh, capital pour nous. dëgg la match la boo xam ne bu am solo la ci ñun rawatina ci euh, ngir ñu daal di mën a yeggali euh, compétition bi nekk na ñaari équipe yoo xamante ne euh, daje nañu daanaka war na am fukki fan fii Ndakaaru muy Mouloudia mu nekk équipe yoo xamante ne xamante nañu bu baax a baax te dina nag metti ndax ni ñu ko gisee woon am nañu chance itam ngir daal di mën a jàll am ndam ci match yi nga xamante ne moo nekk suñu kanam te daan ci dem ba jeex tàkk xam nañ bu baax lan la war a def ndax résultat bi nga xam ne moom rek moom la ñu war a am moom mooy ndam te ñun nag booy xool ñun ñoo dugal suñu bopp ci guuta te ñun rek ñoo ci mën a génnee suñu bopp daan nañu am nag capacité daal di euh, réagir si yu mel nii waaw moo xam nag ak expérience bi nga xam ne amuñu ko trop waaye euh, dinañ def suñu kéemtalaay katan ba tey ji la nga xam ne moom la ñu bëgg ñu am ko ci ku ci nekk nag am na feem koo xamante ne mën nga ko exploité ak point faible ak euh, Modou Diaye donte xam nañ nag am nañ a ngir fexe def suñu kéem la kàttan ba am ndam ci match bi ndax euh, doon lo xamanteni ne tiit ci itam. ci wàllu coupe CAF moom jaraaf dina lalé ëlëk ci ñaareel bi jonganteem digganteem ak wa ñi di CS Sfaxien bu Tunis la jongante ba euh, ci Thiès lay euh, xewé bu ñenti waxtu jotté ci jongante bu njëkk ba nag mooy première journée phase de poule jaraaf dafa daanu woon euh, ci seen diggante ak ay zimbabwéen Ligue 2 bu Sénégal démb def nañu seen njeexitalu fukkeel bi journée Aladji san ñi nag di waa démb jëm FC dañoo dëkk Ndakaaru daan fi waa Renaissance ñaari bal ci euh, dara daal di kon foqati ñaareel bi place ci championnat daal di koy topp ci ginnaaw waa Linguère bu Saint-Louis léegi Wakam mooy ñetteel si classement bi Sonacos itam dafa daal di rek ñàkk digganteem ak waa Guédiawaye benn bal si euh, dara la yëf ya mujje beneen doomu Sénégal di Oumar Daf ñi ngi waxtaanee ay mbiram ca France ca Sochaux yokkal nañ ko contrat bu mu nekk entraîneur ba ba 2023 ndax la mu fa def daal dal na xel tubaab ya ko jiite woon ba nee noonu nañ ko bàyyi mu gën a liggéey moom nag mi ngi am ñeent fukki at ak ñeent ci wàllu euh, lii di footballu Angleterre démb Sadio Mané def na benn passe décisive manam joxe ben bal gaañu dugal motax sa ba Liverpool daal di kon gagné wa Wolverhampton ñom nak gëjoon nañu gagné ñu daal di daan ñooñee ben bal ci dara tax fu mu toll nii euh, ñu ngi ci juróom benneelu place bi wara lijeenti ngir ngir gagnewaat fexé nak qualifier ci Ligue des champions Ligue des champions bobu dinañ ci wax tay ji ci ngone 20h Real Madrid moy joué Atalanta de Bergame ci aleba nak Madrid ni ñoo gañoon benn bal ci dara te euh, fernand Mendy moom Dajon, daajoon euh, dugal boobu euh, but Benen jongante bi dina dox Manchester City ak quoi Allemagne yi di wa Borussia Dortmund dinañu ko no jouer vingt heures lay doon ci tam City moo gañoon ñaari bal si dara yoy jongante des ko mën a bu qui borom bi ak kattan ak tal ci radio Futur Média ala yu nu ak équipe bu France yi n'est ci national ba di nu wutloo euh, libéraux nee na nag bu doon seen sago dafay njool am doole ci dëkk Thiès xamoo ku man ku mel noonu. ah payoor gi baax na. payoor gi baax na kay laaj. dimension terrain yi wàññi na. wàññi na <laughs> jërëjëf Malal. a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg see yéen ci chronique culture beeg Haj Ndate Diop. dal leen jàmm. coow li ci koppar yi nga xam ni moom la génnee ngir masawoo ko artistes yi ñu koy duppee fond force Covid 19 ba léegi di wéy yenn ci artistes musiciens yooyu rawatina ñi nga xam ni ñoom ñoo yori instrument ñu leen di duppee instrumentaliste di wéy di laaj seen wàll. tey jii ci talaata gi sax fas yéene dem toogaani ci makaanuk direction des arts Cheikh di clavis mi ngi bokk ci kuréel gi ñu duppee sama instrument. bi ñu defee répartition bi dañoo jël rek am ñoo xamante ne dañ leen jox deux fois trois fois maanaam maîtriser ñu ko léegi nag am ñu jot am ñu jotul léegi ñoom bu euh, dañ ne la woon nañu ñu xool ko ñu ne ñu ne ñoom du ñu génne liste yi tant que répartition bi jeexul xam loolu déjà rek c'est un problème bi ñuy séddale par ñu nañ def réclamation mais réclamation bi li ma si jaaxal mooy dañoo déposer réclamation sama instrument deux ou ñoo fi jot dañu waroon dem DA mais amuñu woon effectif bu doy pour dem fa waaw léegi nag man dama comprendre ministère boo xamante ne yow

président waxee la joxe pour dimbale artiste am na artistes yoo xam ne jot nañ am na artistes yoo xam ne jotuñu ñun lu ñu gën a jaaxal ñu xam ne au niveau de la SODAV lañ nekk ñun mënuñu am benn renseignement au niveau de la SODAV boo demee waa SODAV ñu la demal direction des arts boo demee direction des arts ñu la demal SODAV donc finalement ñun kenn mënuñoo renseigner dara te jotuñu suñu xaalis ñun ay musiciens professionnels lañ yor nañ suñu carte depuis plus de dix ans mais vraiment ñun xamuñu fan lañ war a xamuñu Sodaaf a dem wala direction des arts lañ war dara naam sax waa direction des arts bu ñu sukkandikoo ci liste yi nga xam ni moom la leen kuréel yi boot yooyu artiste jébbal daal di nañuy fay ba siiwal sax liste yi nga xam ni moom mooy bénéficiaires yi ñoom tamit ci seen doxalin làq nañu stuut lu ñu jagleel yenn ci artistes yi ñëw di def réclamation. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS saint cuuraay raktak bi rey gamme Opalia ak savon de Marseille créole Nyon leen may li ci Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf AstraZeneca di ñàkkub angale gi ñu tàmbalee gaafal ci réew yu bari ci àdduna bi journal L'Observateur moom la xëyee ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ñàkk la boo xam ne Angleterre la bawoo aaru ci coronavirus bi moo ko tax a jóg waaye am na lu mat fukki réew ak lu teg yu nekk ci àdduna bi yoo xam ne dañu ko tegandeegam ci suuf jëfandeeguñ ko ndax dañu caa gis lu dalul seenum xel fii ci Sénégal it ñoo ngi wax ci réseaux sociaux yi ne ñoo xam ne ba ñu ci ñàkkee seeni mbokk yëf yi jigu leen saafara su juraat jàngoro la mu di xibaar boobu L'Observateur nee nañu ñi séq wàllu wér-gu-yaram gi ci réewum Sénégal dëggalaguñu ko bañ nañu ko ba ñoo ngay wéyal bu baax baax campagne bi ñu def jëm ci ñàkk askan wi ngir aar leen ci mbas mi Le Quotidien nañu ak loo ci mën di dégg daal moo di AstraZeneca gi moom kaal réewu tubaab yi ñu ci bari suspendre nañu vaccin bi journal bi nañu fii ci suñum réew di Sénégal docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention wax na ne amaguñu benn jafe-jafe ci vacciné gi ñuy vacciné nit ñi mu di lool ci gis-gisu journal Le Quotidien am nag waroo ci li tukkee ci gëstu bi nga xam ne BPE mu di bureau prospective bu mu baragloo bi def ndax ci jàngat boo xam ne ñoom waa e def nañu ko li mu wane moo di fii ci Sénégal téeméeri nit ñu yegg ci suspendre ko ci réew mi ba jëmmi jamono rawatina bi nga xamee ne réewi tubaab yu bari ci àdduna bi ñoo ngi koy moytu la sinekaay nañu AstraZeneca moo di vaccin bu bari coow réew yu ci mel ne France Allemagne Italie Espagne Danemark Hollande ak Portugal ñoom bàyyi nañu ko teg nañu ko fi suuf le nañu vaccin bii di AstraZeneca neexu da ndax jiixi jaax gi ci am ak li ñu koy waxal ba tax gaafal gi ñu koy gaafal mi ngi gën di law immunologue bi di docteur Tanaxa Njaay Jéy di wax ci xët mu njëkk Soleil national wax juy dalalum xel ci vaccin AstraZeneca bi li mu gis moom docteur bi moo di campagne bi ñuy def ak vaccin AstraZeneca ware su ko dakkal dañu ko war a wéyal ñu wéy ci journal Le Témoin sang bu tedd ba ca Touba di Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru xalifa général des mourides moom la journal bi xëyee bàkke wi ñu doon bàkke maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick mu di régulateur social Témoin nee nañu Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru yeyoon a bàkke dell ak diine yore ji koy pusa bëtu askan wi fu mu xonqe mu ñëw taxaw seen wet coonob askan wi it alalam du ko fekke yéenekaay bi nañu waxuma la yoonu murit waaye Sénégal gi yépp li ñu doon jooy bi ñu ñàkkee Mame Dabakh Malick mën nañoo feral seeni ronkañ ndax Serigne Mountakha mi ngi fi Serigne Mountakha mi ngi it ci xët mu njëkku Rewmi Quotidien moo fa nekk moom ak Abbé Jacques Seck ay régulateur social noonee la leen journal bi tuddee ñu tudd beneen sang bu tedd bu ñu doon màggal démb ak bërki démb mu di Seydina Limamou Laye Al Mahdi lii Quotidien nañu téeméer ak ñeen fukk ak benn wooteb Maam Limamou Laye màggal nañu ko démb ak bërki démb waaye aw respect gu mat sëkk ci geste barrière yi ñu digle ngir moytu lu lawal coronavirus gi ca la ko màggale soleil national la ñu ci bés bu am solo boobee ci lay xalifa bi sàkkoo ci ñi séq réew mi ñu góorgóorlu ba jàmm ak dal gi am ci Sénégal dara bañ ko yàq njiit réew mi Macky Sall dise ko nee nañu keroog àjjuma ba muy daje ak gaay ci société civile gi wax na leen ay dëggam wér péng nee na leen chef d'état gi ma doon tax na du ma nangu kenn di wañ sama ba saafara judd ci waaye ab état di yox yoxi ñoom ñu arrêté débat boobee ndax nee na leen musuma taxaw wax fenn baa ma wax kenn ne damay def troisième mandat nañu àndandoo liggéey réew mi ndax mënuñu fee nekk fukki weer yu nekk ba fukki weer ak ñaar yu nekk ñu bëgg a organiser élection ci réew mi njiit réew mi Macky Sall yéenekaay bi nee nañu wax ne gars yi ci société civile gi ne leen nit mënut a nekk cim réew justice réew ma soxla ko mu bañ a dem wuy ji ne muy Abdoulaye Wade di Idrissa Seck ba ci man jaar nga bi la justice woowee li nga doon def yëpp danga koo bàyyi ko comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS saint touraille raktak bi saint Opalia ak savon de Marseille créole ñoo may li ci ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm di ko sant na ko noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM xibaar yi bokkoon na ca saytaane gi laxasu diggante Gambie ak Sénégal ca dëkk bi di Sayang benn doomu Gambie bu nu fa faat ki ñu njortal paate gi doomu Sénégal la ma nga ci garda bi ci commissariat diwaan ga waaye commissariat ba ci boppam askan wa waa Gambie dem fa taal lakk ndax waneeg mer euh, jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk Sénégalais yi fare bitim réew di secrétaire d'État Moïse Sarr di woote ak dal ginnaaw bi mu tiisoo rëcc lool jaale njabootu ki faatu ci euh, tiis woowee bu sañoon ñëpp ànd ak dal ndax njaboot gi benn la gombi Sénégal ñàkk gi ngir jàngoro coronavirus ak ñàkk bi di AstraZeneca ak coow li ca tugal yenn ci gox yu nu fa gis ne daa amee njeexite ñu ne ci yaram yenn yi laboratoire ba ko defar ñoom ne am nañu firnde ak yàqin ne euh, benn njeexite gu bon amu ca ndax laata ñuy génnee ñàkk bi daal dinañ ko jaarale fa war yëpp ba am ci firnde ci wàllu kër docteur ak xaral la ne ñàkk bu baax la fii ci Sénégal it fàttali ni kilifa yi lañu dogal mooy wee ñàkke boobu vaccin

Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi ngeen baal ma soxna Yacine ci wàllu service digital gi El Hadj Assane ci micro bi ci kanam tuuti pencoo geeg RFM dinañu dalal incha allah docteur Khadiata Mbaye bu hôpital Fann fa nuy fajee ci jàngoro corona.